asalaamaaleykum si taala wakatu waxtaan wa xëbu yàlla sax yàlla kii إخلاص على المسلمين على أخطاء سجون توا وحمين يمكن أسورة السماء والآدي وحب يا مساكين أجيب سبحان الله سعدي محمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله مسيار نيبتي saxabaan lu mu afdal ma daanaka rajo mu ko jiitu woon yëpp rek siyaar ñëpp xam naa Oustaz Badara Ndiaye laaj tuum yi am solo bu njëkk bi moom bi moom ak juyante la ca ca waxtaanu kër maam jaara woon woo ko saal alshan yi ak roance roance moo fa moo fa wax ne moo fa teewaloon moo fa teewaloon Ousmane xam bu loolu ñoom te la ngay maawee kay la maawee maawee Aliou ja waaw ok ndax Aliou maawee ñoo ñoo amuñu fi waaw kay bu ci topp mu bàyyi ndax ina ina li si ne yi bàyyi woon ko ko joojee ca ca sa yortu duwaan loolu na ndax kon jaayante foofu rek la tàmbalee andi na Oustaz Badara andi na ci ba daal ci nag xam naa xam naa dab dabaatal kon kon ku bëgg a tegtaloo kon ci it lu mel ne jigéen ñi bu ñu sar jaayante lu mel ne hind waaw xam nga kon bu dee ci bu dee ci usulu fiq lañ koy wax la usulu diin wala nagam maanaam dañuy seet li nga xam ne moo dëppoo moo dëppoog njàngaleem lislaam moo dëppoog aada ja moo dëppoog ruuga su fekkee yi ñoom da da ginnaaw fuqahaa yeeg ulama kalaam yi dañuy ñoom laaj ay cislaay nangam misaal tey fiq fiq bi détail fiq yëpp maanaam gis nga niñ ci wotee ka kenn ku nekk di bu dee Maliki Saafi nangam kenn ku nekk am ay addi addis yooyu kii sa morom gis addis bi moom gis ko nga xam ne nangam nga xam ne détails yi dañ mujj ci fore ñu génn ca nga xamante ne ay taqriraat lay lay mujj ci doon rek di wéy ndax ndax ndax dañoo wax ne romay dañoo wax ne taxi yi tolloowut ak ak xawaadis yi xawaadis yi moom da xam nga day day soppiku di wéy li ñuy wax coronaas te mooy istinsax ku ne xam na ne boo ko boo ko boo ko bëggoon a indi ci ci alxuraan fekkoon nga aay boobu nga doon jëfandikoo keneen jëfandikoo na ko ci ci leen waaw yooyu yooyu moom nga xam ne kon ñoom bi leen gaa yi laajee rek yéen seen cës lay noonu ko ko wértikat yi di laajee. ñu indi ñu indi jaayante waaye waaye waaye jaayante jébbalu lépp benn la jébbalu mooy maanaam mu yaatu mi nga xam ne ne ko ku def ku dugg ci diine jébbalu nga na nga koy defee nag loolee ngay dalante yonti ba loolu la ñu loolu la suwenk yi tudde jaayante waaw waaw waaw barik la xam ne nga xam ne mën naa bañ a doon ab melokaan sangam ni ko sëñ ñi ko sëñ ëkk bu sa waxee joxe sa xol misaal di liggéey sëñ ba nangam ñëw ne ko def ne ko nag joxe naa la ci làmmiñ waaw waaw waaw kon kon moom ah tërbiye gu googu nag mag ngi di tërbiye sëriñ si ma ngi xewe woon ca ma desatu bax daal lii tuddee tuddee lu ab sëriñ bu mbooloo wër topp ko nag noonu di loolu mi loolu ci mi ngi xewe nañu ci ca Mansuur mu xalaaj ba day bax daal la kon aw asani hijri yi ci la ci la sëriñ si kenn ku ne di am mbooloo mu berew muy jublu ci yow maanaam jaayanteeg yow ne ne ne loo ko waxee mu def ko mu nekk ca waaw waaw budul ci budul ci diine budul ci budul ci tasawuf boo demee ci ci masahi bi kenn ku ne da ngaan maliki la maliki la man kay moom maliki la kii na shafi la shafi la kii na xam ne loolu kooka jàpp ne mooy sëriñam ci loola loolu rek la de waaw xam ne daal dëgg-dëgg mbir yàlla la la mooy mooy yëf yi waaye du ci sa waxir yi sonk sama bopp. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh taxuha bu yar sax yam kii iftahu bi wasana bi ana def asila ajalan bi bi si Muhammad bin xaaral xaaral kama bi ñaa kama est-ce que joxe tu waa wax na ñoo kii asawara bis bi kama kasama wal adi wax bi insha Allah kii ajib asri bi xaaral bi Muhammadin tawli fa baax soxna ko waxtu temps bu dox siyaare ñëpp ci weer yàlla yi tëddee rek ak Cheikh Mbana Ramadan yëpp rek Shawal yëpp rek moom safar weeram yëpp ah ok di di di sant yàlla bu baax a baax ci xewalam yi nga xam ne saxiir yi di bati nii waaw moo dee si Cheikh Naa Njaay moom di laaj la la laaj la ñu am solo laaj mu njëkk bi mooy xasida yi moom xasida yi yu muy gis ak mbind yu wuute yi mool yu njëkk yi ak ak yu mujj yi wuute waaw waaw bu dee ci ci mooy bu bu wabaa abi dayri ahlu saqaay ahlu saqaay ma ñu ma ahli moom kon ahlu la waaye yéen ak mool yu njëkk yi daal moo tane li may wax mooy murid gi moom li may wax ne murid gi moom róog róog moom la éguité wut waaw maa kenn commission scientifique boo xam ne xam na sa waxuma rek nag ku di ku di garab ñu di garab yi am nañ ca ca wàll waaye ñu ñu jàng aturaasu suuf yi te ñooñu xilla lañ xalila ñooñu ñooñu ñooñu dénk leen xasida yi ñu ko saytu kenn du ko muur te jël boppam waaye ma koy leeral baax a baax waxuma rek ko xam balaa ak nangam rek déedéet ko xam te saw laa wax non non bëriwuñ mooy kon kon liggéey boobu moom kenn itteewu ko kon joxe da nga koy joxe ñoo xam ne jëmbul tànn yaa ma neex ma murid gi daal moom moom ngoog ngoog roo gi moom oto yeeg kër yeeg tabax yi moom du jiitu waaye. rooga moom kenn kenn itoo ko kon nag kenn kon nag nag booy boo nga ci ci nga teg sa njëriñ rek xam ne nag sa mbir yaa xam yaa xam yaa xam sa sa mbir ndax ndax murid gi lu jëm àllaaxira la waaye lu jëm àdduna te nag te mbooloo mi dañ koo jëm jëmale léeg-léeg àdduna te du àdduna de moom bu benn laaj bi mooy tax a lokk dëgg-dëgg ci sëñ bi. taaloo loq bi mooy ginnaaw attaan loq yaxsulu bi axsil wirdi sa sawaan saxaba xidmata aw lam yu saxiba jëlal wirdi maa xuus yow ci koo xam ne am na ci ndigalul jëfe ga joxe ga kooku nag mooy sub sëriñ séexu mooy si séexu dëgg ku la ku la jox maa xuus bi seet ko ba mu doy la kooku mooy dox sa muy buum gi dox sa diggante ak Sëriñ Tuubaa suñ tubaa dox sa diggante yonent bi interaction dox sa diggante ak ak ak ak yàlla kooku mooy taalux taalux ji mooy xam-xam yi yooyu balla ca dënub suñu bamb ba di di man di fenkat ci ci ci sa ci sa dënd bi maa xuus moom leer na ci moom moom moom maa xuus rawatina xaatim bi moom bi xam ne man man man yor naa ko xaatim bi moom ñu koy jëfandikoo xam-xam nañ ne dara la ñu ko jëfandikoo te sart yi dara looy sart islaam rek li islaam digalal ma tere rek yow yow nga nga sàmm ko jeex na waaw lu war rek la moom correction bi leer na ci nañu moom sa ruuf ci kaw ni bi leer na ci leer na daal waaw nga xam ne ne ne kon taxalux ba ngoog waaw taxalux ba ngoog kon la ca la ca topp la ca topp lu mu waxaat ci diwaan waay xet ma kay loo wax ne kat sëñ bi sëñ bi dañ dañ ne dañ ne catuwaa ci ci la jaayantee yonent bi alayhi salaam bi xidmatin asalullah al wafa asalullah al wafa waaw xidma xidma gi Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye day laaj boo xam kon suñu tubaab ñëw ba Touba di di di di ajuwaat ci ci yonent bi alayhi salaatu salaam di ko liggéeyal ngir lan te moom moo moo wàcce woon suñ suñ dara Ndiaye ñoom ak safara ñoom kàngam yu jëkk yooyu suñ dara suñ ñoom waaw waaw loolu loolu kon moom loolu mu doon damaa yaakaar ne sa sa laaj bi kay du loolu mën naa am si sa wala boo sa laaj bi nii moom leer na xidmatin la wax waxi naa yàlla banaa bil xidma li muslimina abadan warxama mu ne moom léegi nag moom kat wasaral xidmata ama jëy seesin waxal boo addamaraha min asiri liggéeyal yonent bi aleyhi salaam ci xeet bi loolu bëgg jël engagement nekk ku kuy ram mu xeet bi nangam am engagement yu bari mu jël ko loolu loolu moom xidma liggéeyal wutu yonent bi alayhi salaam doon xalifaam ci ci umaam bi kooku moom kooku moom bokkut ak bokkut ak bokkut ak maqaamaat yi yi nga xam ne moom la suufiyanke yi wax loolu loolu loolu hors catégorie la bu bokkut waaw dafa mel ne que kay xanaa kay ñuy wax naan sëñ bi ca mille trois cent dix dafa jublu ci Cheikh Xaadir Jilaani ci la ko gisee yàq sara mu gis ko mu saako wér de loolu moom waxoon naa jaban man moom yaakaar naa mille cent quatre-vingt-onze gis naa Cheikh Xaadir Jilaani ci yàq sara nii gis ko nii moom maa ngi ci saal bi gaa yi toog télé baa ngi tàkk lépp man ma man ma sonn ci sama sama ndeysaan di di di sikkar di di di di sikkar di sikkar siral ma sonn mu daal ko ma ma daal mu daal demee feeñ ma ma ma maa ngi gis sax di xiin xiin sax ndax naan xam ndax gaa yi gis nañ ki ki may gis waaye ni ma gisee nii nii xoolee xam naa ne gisuñu ko kon loolu moom loolu moom ci man. boo moom man xawma ko man xawma ko ndax man duma kenn duma kenn kenn kenn xam naa duma kenn loolu wér na moom ci moom ba na fi man gis naa si waxee jaay ci ay ngelaw ñu naan jox ko wedd ba man am na lu lu mu këyit wu mu yor wan ma ko ñu bidi ci dara maanaam loolu moom dëgg yàlla man xawma ko Sëñ Tuubaa mi ma xam dox Sëñ Tuubaa moom moom gaay wax bu dee loolu la moom man xawma ko waaw ndax contradictoire day am ci man lool ci sama xalaat bi bi may doxee mu ne nekk nekk ki nga xam ne moo defaloon gars yi agrégation ñoom suñu daam ak cëb ak sëñ dara asan ak mbakk bu su ñoom kala defaloon agrégation ba noppi moo dem ba mille trois cent cent dix mu soog a dugg dugg say say seppe kooku moom kooku moom wax yàlla ka ka demoon ca assassine sa ma jox ko programme bi Chafaani ah am na nag ñu gars yi nga xam ne ñoom day day dañuy layal IPRES bi dañ dañ dañ ne suñu leen jëm loolu mu wax daal kiiwut ndax ma ndax mu da ko wax noonu rek waaye daal waxatul la ko jënd maanaam rek gëmuñu ko daal nga tam ndax gëmuñu ko sax du gëmuñu ko maanaam mooy dañ ne maanaam seen seen IPRES bi bi dafa dàqonteeg IPRES bi suñu suñu leen jëm bi kon dañuy dañuy dàq bu suñu leen jëm jeex na dàq loolu loolu moom day xam-xam la loolu it séance na ko. bu dee li ngay wax ci dëgg la sees na ko te dara nekk ci waaw waaye yee li tax ñu wax naan alo alo alo alo al ulama ul amiluun mooy ñi xam jëfe xam-xam ba ba mu am résultat wala waaye képp moom seen wax moom tey gis koo xam ne day wax lu jeex te xamu ci dara gëmu ci dara ndax jiw ci dara gisu dara kooku moom mooy alim képp waaye alimun amil nag mooy koo xam ne moom expérimenté na li mu xam ba gis ne dara la mu leer ko wérut mu génn ca wér na mu sax ja waaw kooku mooy ko honnête ki alim bu honnête bu set wécc bu modeste bu leer bu gore waaw xam ne da xam ne moom dëgg lay wax dëgg dëgg waaw dëgg nag nee naa mooy asidquhu mutabaqatu addaxiilati dima yuuxi bihi xinaaw nit masque bi ñu yor kenn ku nekk dangaa masque wu sa biir dëppoog masque bi waxuma waxuma masque bi dëppoog sa sa xol de sa xol bi lañ ci nëbbu dëppoog ma ni nga masque woo loolu kon leer na yëf yaa ngoog rooga daal mi bokk xam naa kooko soxla wuti ko waaye man daa mel ne kenn soxla wutu ko soxla nga sa naa wutu